mois de juin après le saccage de l'université bi ngeen di jël ay décision mm-hmm. euh, impliqué wu leen amicales yi ci prise de décision bi alors que finalement les amicales en rapport avec le rectorat ont aidé à faire accepter euh, l'idée de l'arrêt des des cours d'abord pourquoi vous n'êtes pas réactif aux courriers aux interpellations des des, des étudiants. Euh, Bon, bon sa version de, <laughs> ah, c'est pas ma version, c'est leur version. C'est, c'est, oui, la version d'une partie. <laughs> pas plus tard que defe semaine dernière recevoir na euh, l'amicale des étudiants de l'UAM parce que ñu ngi ci ñu waxtaan. un mois avant recevoir na l'amicale des étudiants de Ziguinchor ñu ngi doon grève quelque temps avant recevoir naa. l'amicale des étudiants de Bambey mën nga leen laaj ci année bi defe naa en tout cas recevoir naa l'amicale des étudiants de Saint-Louis. non waxuma ci année bi diggante juin ak maintenant. Ah, bi ngeen arrêté cours yi. non ah, kenn arrêté wul cours. cours yi ah. ñu ngi wéy. non les cours yi en ligne yi gars yi nanguwuñu gars yi d'accord kan moo la wax d'accord. non d'accord les statistiques que ma am man mun nga ko dem vérifier ci au niveau du rectorat les statistiques c'est que. je pense que c'était le 23 juillet, je n'ai pas la date exacte, il y avait 18 000 étudiants qui étaient connectés en fac de sciences. ay 9 000 je, peux t'envoyer ça. fac non faculté de sciences et techniques. Mm -hmm. donc lii am mooy te Claude Lichou professeur Claude Lichou defe naa bokk na ci ñoo xam ne ñoom ñooy gérer les problèmes d' enseignement en ligne ci Université Dakar nee na gëm na ni moom moo ko bind ah mun nga dem eh, xoolaat article bi mhm. gëm nañ ne. étudiants yi ñi inscrit ñi ñi suivre les cours en ligne ñoo gën a bëri bu dee dañu war a dem en mais mais vous donnez la, la, les, les chiffres concernant la faculté de sciences et les autres facultés. non loolu laa la wax ma ne je les chiffres en tête ñu ngi non. li ma yor noonu je peux prendre mon téléphone là. Oui, je, oui, je oui, téléphone. oui, oui, ci liggéey bi la mun naa la ko jox euh, FASEG. Eh, mun naa la ko jox mun naa la ko jox donc en tout cas selon selon Claude Dichou on a peut-être une présence plus importante. en ligne qu'à l'amphi donc vraiment loolu euh, je veux je veux je veux je veux rassurer en tout cas euh, tout le monde par rapport à ça que enseignement en ligne à l'université de Dakar en tout cas voilà moi j'ai quelques statistiques ici on est le 22 juillet 2023 faculté de lettres et sciences humaines en tout cas 9753 personnes ont suivi des cours en ligne. Mmh. Euh, 9000 sur non mais attends les 44 000 ils n'ont pas les cours en même temps. waaw jour est-ce que par jour il y a 40 000 étudiants qui font cours. non oui, c'est pas oui, comme ça oui oui euh, le 29 juillet faculté des sciences je vois même ici. Euh, il y avait un chiffre que j'avais vu, c'était 21 711. 21 711, où ça Voilà, FST. Euh... Donc, donc je veux dire. s mais FST vous ne pouvez pas avoir 25 000 FST vous avez. oui je pense 18 347 étudiants inscrits. non attends attends ou bien da ngeen am des des des des étudiants qui font dans l'usurpation. non non non euh, mais comme j'ai les chiffres en truc je vais les envoyer mais gëm naa ni et les autorités académiques en tout cas ñoom ñoo wax euh, Claude Lichou je pense que c'est une voie autorisée dans ce sens professeur Claude Lichou nee en tout cas li ñu gis ne mooy peut-être la présence en ligne. elle est plus importante que. Euh, euh alors monsieur ministre. quand donc, vous que donc non ma ñëwaat ci li nga wax parce dañ ne dañu maa mere. non d' abord d' abord d' abord sur les chiffres quand vous dites que euh, fac lettres 9000 étaient en non, ligne. pour un jour donné. Voilà, après pour, un, pour, jour c'était un, un jour jour c'était 15000. plus de 44000 étudiants non mais est ce que c'est 40 est ce que par jour. au au, dee cours yow bi nga doon dem fac. gëm nga ni les 44 000 étudiants ils sont il y a pas d'amphi pour contenir 44 000 étudiants. la mais waaw waaw mais waaw mais même sur deux jours. même sur deux jours. Euh, nga am nga am 9000 étudiants à ton avis. mais minimum. minimum vous avez 30 minimum par jour on peut avoir 30 000 étudiants pour les différentes classes de la première année à la maîtrise. Mené. Voilà. Mené. Euh, et, et dans plusieurs et dans réelle. plusieurs disciplines. La, la présence réelle la présence réelle en amphithéâtre boo ko mesuré woon xëy na doo am chiffre yi parce que yow yaa gën a xam ne am na ay étudiants yu bëri du ñu dem en fii yow yow loolu ñun xam nañu ko. duñu duñu duñu dem en mais xam nga lan laa nan ngeen mën a décréter la réussite des courant en ligne alors que UVS bi nga xam ne euh, loolu ngeen leen defal euh, mu ngi jànkonteel ay ay problèmes et puis décision boo koy jël kay da ngay concerté wu avec les les concernés. ñoom nee nañu dañuy xalaat. seen xarit yi nga xam ne ils n'ont pas bénéficié de l'équité territoriale concernant la la la couverture réseau euh, ñi nga xam ne amuñu ay portable adapté tous ces étudiants là qu'est-ce que vous en faites waaye euh, il faut aussi ñu waxante wa wax wax dëgg ci la hmm. Université Dakar jusqu'au juin gis nga l'amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques le mercredi 2 juin def nañ fa cours ba vingt heures ICAT amuloon benn grève étudiant amul benn grève professeur le 2 juin amul benn grève PATS le 2 juin le lendemain ñu xëy lakk ko lakk amphi yi lakk lépp yow gis nga ko loolu bu amee mais il faut qu'il des conséquences les conséquences de deux choses l'une soit ñu ne nañ tëj ñu def année blanche le conseil académique les autorités académiques de l'université Cheikh Anta Diop ñu réfléchir xool nan la ñuy mën a def ba sauver seen année ñu joxe bi programme pour ñu def ko te gëm nañ ne war nañ ko mën a def parce que il l'ont déjà fait en deux mille vingt et un en deux mille vingt pendant la Covid ça a été expérimenté deuxième chose xam nga aussi. donc le langage de vérité que vous tenez aux étudiants c'est que quand il y des actes. on en assume les conséquences. mais bien sûr loolu moom loolu je pense. oui mais si vous le dites comme ça c'est clair. mais je le dis à dire que boo mais loolu laa waxoon boo gisee benn étudiant nga ñëw yàq sa toj daara bi xotti téere yi làkk ko. mais yow après sëriñ bi bu ñëwaatee pour jàngal euh, da nga koy sant je pense. donc ah. loolu moom moi je l'assume c'est-à-dire que ñun xëy ñu yàq université Dakar ay étudiants ànd ak peut-être ñoo xam ne. nekkuñu ay étudiants dem saccager suñu université ñun nag gëm nañ ni loolu warul tax ba ñu tëj université bi ba ñoo xam ne ñu doon jàng loolu yàqal leen ñu trouver benn solution boo xam ne gëm nañ ni war na mun a sauver année bi ñu gunge université de Dakar ñuy def loolu.